ils applaudissent mais ils ne comprennent pas aussi jàpp nit tey ko un an xëy ne ko demal et des centaines des gens qu'on disait très dangereux euh, naka lañ ko mën a comprendre rek. mon analyse personnelle man. Mm -hmm. euh, docteur Malick joxaguma assez d'éléments pour pouvoir me prononcer sur ça xam nga euh, politique homme d'État wala citoyen. Mm -hmm. doxaloon. ni ñu war a doxalee en tant qu'homme d'État en tant acteur politique en tant que citoyen lambda euh, ku ci nekk li nga xam par rapport ak sa sa sa élément d'information mu jox la lu leer nga mën ci wax jox ci sa avi loolu suñ ko doon def rek àdduna si boppam waxuma sax Sénégal <laughs> àdduna si boppam dina dox ni mu war a doxee. man je fais pas partie wax la nga bëgg a wax wax xoola ma ne. def loo xam wax loo xam boo tëddee nelaw. maintenant euh, libération yi na ko apprécier je n'ai aucun élément. oui bu baax la je n'ai aucun élément. tenant aboutissant awma benn information concernant ce qui se passe ni nga ko yëgee mhm. laa ko yëgee d'accord donc comme ni nga ko yëgee laa ko yëgee su ma ñëwee naan bon yaa a telle chose y a telle chose je n'ai aucune information sur ça et man bokk naa en tout cas ci mhm. homme politique yi tey après vingt trois ans et demi incha allah euh, de de dans dans dans le milieu politique. Mhm. je n'ai jamais jamais jamais parlé de loo xam ne xamuma ko. d'accord mais mais mais ce sentiment bëgg naa ko xam aussi parce que ñu bëri ils ont apprécié que nit ñi ñu bàyyi leen ñu génn. man sama sentiment. oui dans un pays comme le nôtre su su doon man kese. Mhm. bu amoon cent candidats man d'accord naa. cent candidats ma man mais man ça m'engage. Oui, ça, ça ne m'engage que moi. Non, je donne un chiffre comme sa ok maanaam lu mu bëri bëri dérangé wu la. maanaam man mu loolu dérangé wu ma parce que démocrate mooy démocratie mooy. Mhm. ñëpp ñi nga xam ne dañu bëgg dem élection dem élection bu ñu demee élection tànneef bi c'est-à-dire doomu Sénégal tànn ki nga xam ne moom la xalaat ne moom moo baax ci moom. Mhm. moo tax man très souvent. peut-être parfois les gens ne comprennent pas trop dans quel cadre vous, vous, vous expliquez cela. Je dis une élection ne se gagne pas par ne peut pas être gagnée par une personne. Mm -hmm. C'est un choix. C'est un choix dafa nit ki bu man man daf may jaaxal sax boo gañee nga tëb. Ah. nga tëb pour lan déedéet. loo war a def élection da nga war a tiit. Mhm. bu ñu la nee demain yow yaay président de la République tu dois avoir peur parce que li ñu la dénk dafa dafa dafa diis li ñu la dénk je donne juste un exemple du budget du Sénégal mm-hmm. sept mille milliards sept mille milliards yooyu war nga ko dugal ci faj fi nga ko war a dugalee mm-hmm. soo ko dugalul foofu yow ak sa borom la comment ëllëg ëllëg yow mal xiyaar mm-hmm. yow ak sa borom la soo ko dugalul ci ci ci paj soo ko dugalul ci jàng ak jàngale nga dugal ko feneen mën nga nekk fii période bi xëy na am na loo xam ne mën nga ko mën nga ko mën nga ko def mm-hmm. nit ñi bañ ko xam waaye fële doo ko bañ moo tax ma ne euh, démocratie di tax ñu lal ko c'est pas tànneef bi dañu dafay wóor ne sénégalais ki ñu tànn moo gën pour ñoom ki ñu tànn moom lañ tànn point mm-hmm. moo gën yàllaa xam ndox moo gën wala gënul mais le plus important mooy ñu tànn ki nga xam ne xalaat nañu ne dina avancer. loolu dama doon